comme ni ma ko waxee léegi euh, maa ngi nekkoon fee commissaire central de Matam léegi ci mois de juillet bi la ministre de l'intérieur jël benn décision nommé ma fii commissaire centrale de Saint-Louis donc waa Saint-Louis nag maa ngi leen di nuyu bu baax a baax parce que déjà bi ma yeggsee gis naa ne commencé nañ ma di ma accueillir bu baax a baax léegi comme ni ma ko waxee rek défi yi nga xam ne ñoom ñoo posé wu yëpp fii nii. au niveau de la ville de Saint-Louis ak samay collaborateurs yi fi nekk nga xam ne seen engagement ak seen détermination léegi vraiment kenn amatul ci looy loo looy wax ci ñooñu laa compter pour yaa war a compter pour relever les défis défis yi nag bari na vraiment li ñu war a régler ci sécurité publique xëy na mun mënaguma leen wax sé euh, priorité mais am na ay défis yu bari yoo xam ne war nañ ko relever et je crois pouvoir le relever avec. l'aide de mes de mes de mes de défi li ci bokk sécurité routière bokk na ci gestion de la sécurité routière li ñuy wax émigration irrégulière loolu aussi ay défi la yoo xam ne war nañ ko war nañ cee góorgóorlu bu baax a baax am na li ñuy wax criminalité transfrontalière également mooy trafic yi mun na nekk trafic de drogue mun na nekk trafic de médicament et cetera mun na nekk traite des personnes donc yooyu yëpp vraiment dinañ ci jublu bu baax a baax ak collaboration population Saint-Louis ba nga xam ne avant may ñëw wax ma wax nañ mi vraiment des ay population yoo xam ne dañuy collaborer la dañuy travailler ak seeni police ak yooyu je crois que bu ma compter ci ñooñu compter en plus engagement bi ma leen wax léegi ci suñu personnel je crois que jafe-jafe yi du bari noonu quoi mënul ñàkk waaye du bari